ak fi mu waxee ni baayaatuhu fil barri fil bahri taxta sajara wal bahru musbidun wa xawli fajara ak baayaatuhu fil barri taxta sajara wal bahru taybun wa xawli barara kon marxala mu baayaa ba tey yonte suñ yonte bi sa sëñ bu mag jaar na ci am fu mu jaar ak bi sala salaam jaayanteek moom ci côté yëpp euh, bi mu jaayantee tamit jaar na ci ba tey marxalatu tarbiya tarbiya tarbiya goo xam ni suñu borom moo ko ko defal xam nga ñun ñi ku ciy jógoon bëgg a egg ci yàlla day am foo foo foo foo jëm jàpp ci ab sëriñ mu am fu la jaarale dina wan yoon wi ba keroog ngay àgg ci yoon wi waaye day mel ni moom suñu borom moo ko moo ko moo ko tarbiya moo tax e, bim bi mu demee nag ba war a am li ñuy tuddee al maqaamaatul aaliya ak fenn foo xamante ni sii nag mooy conservé wala mooy ki nga xam ni moo war a doon li yonent bi sallallahu alayhi wasallam masuliya bu rëy boobu yëpp bi mu ko waree yoru yenu xëyut xëy rek yenu ko waaye daf am fu ko suñu borom jaarale moo tax mu naan yaa xayra man rabba muridan laa yurid siwaaka yaa faalu kullu maa yurid rabbaani falaka shukri abad yaa xayra maabud min xaqin obida mooy yow mi nga xam ni yow yaay yàlla yaay yar kum mën a doon na nga xam ni yow yaa ma yaral sa bopp hmm? loolu da gis ni dafay dëppoog wax yonte bi salaa salaam ñi mu wax ni addabani rabbi fa ahsana ta'dibi Euh, moo tax tukki bii sax nga xam ni moom la ñuy màggal nii tukki bii nga xam ni moo nekk contexte màggal gi ñuy waxtaanee yépp dangay gis ni tukki bi moom dafay wax ni ab tarbiye la woon ci moom nekkutoon rek tukki boo xam ni da ngay ci barab dem ci barab comme ni ko ñenn xamee waaye tarbiye la woon ci moom boo tax bu daal naqaltani min watani ila daari salam farutani laha muafan yaa salaam naqaltani min haa li ajli tarbiya gis nga ko mooy suñu borom dafa ma toxal jëlee ma fii di ma yóbbu waaye ngir daf ma doon tarbiyaal boppam mooy suñu borom daf ma doon tarbiya ngir ma am li ñuy tuddee almaqamatul aliya ah wal xususiyat arrabbaaniya kon mu wax mu wax mu wax uh, lu mel noonu uh, ba àgg ci nag wax ni nag fi mu jaar fépp nag moom sëñ bu mag bi àgg na ci am li ñuy tuddee li ñuy tuddee ridwaan maanaam marxalatu ridwaan amooy am ngërëm lu yàlla loo xam ni ngërëm lu sax la ngërëm loo xam ni dafa àgg ci am loo xamante ni sii nag mboole mboolem awliyaa yeeg ñëpp moom lañ doon ak wa adxala al ilahu fi qulubi man tasababu fi naqli daka zaman ixraajuhu ila biladi naiya wa naala fiha fawqa sama saariya kon gis nga ñi ko génne yóbbu ko ci réew yu sori nee na sëñ bu mag nee na amana fa fawqa sama saariya ak fi mu nee na fa li gayrillahu fi ndakaaru kulla adan li jarrahul makaar ak barra anillahu la dal ko naakiri min kulli jaalibin ilal manaakiri gis nga nee yàlla setal na ko nag kon loolu marxala la marxalatu tarbiya bi dugg na ci ginnaaw bi mu génnee ci marxala boobu dugg ci marxalatu ridwaan di wax na xususiyaat ak yi nga xam ne moom la ko suñu borom may nee na suñu borom musal na ko nag gi def ko jaam boo xam ne nag lépp luy xeeti munkar suñu borom suñu borom musal na ko ci kon loolu benn marxala bu ñëwee ba tey ci muxaafasa gi bu ñu delloo tuuti ci muxaafasa gi ci côté ci côté ci côté aqida sàng wax naa ko ci côté fiq dañuy gis ni. sëñ bu mag bi tamit ci côté aqida mu xaafis la ci ndax da ngay gis ni euh, dafa jël benn benn benn benn mazhab daf ni awalu waajibin ala al muridi taxsilu zaatihi min altawxidi xabla istiqaalihi bil infiraadi bi dikri wa xadduhu wa bil jihaadi muntahijan mazhaba ahli sunna maa al jamaati wa tilka junna kon sëñ bu foofu déclaré na li ñuy tuddee mazhabam mooy ci wàllu aqida wàllu aqida nag mazhabu aqida bu ñu ko waxee daanaka ñu ci gën a siiw muy abul hasan al ashari ak abul mansour al matridi ci waqida waqalu aqida al ashariya ñoom ñoo jëmmal li ñu tuddee aqida ahlu sunna wal jamaa kon mu wax ni nit ku nekk nag da ngaa war a tàmbalee ci tawxiid dem ci fiq waaye nag danga nga cee war a boole teg ko ci benn mazhab moo tax moom daf chaque jour da daan théoriser loolu walxaqu badu alabdi biltawxidi walfiqh an tasawufi almajidi muntahijan mazhaba ahli sunnati maa aljamaati wa tilka aljunna loolu ci wàllu aqida la bu ñëwee ci wàllu tasawuf da ngay gis ni sëñ bu mag bi bokk na ci teggin yi nga xam ni am na ko digganteem ak boroomam ak digganteem ak ñi mu fi nekkoon melul ni ñun ñi nga xam ne koo ci bokkalut xalaat rek li ngay njëkk def mooy lam nekkoon wérut wala nga di ko xeeb wala yu mel noonu boo ñëwee ci côté muhaafasa gi ndax ñëw naa léegi ci côté fiqh ni mu doon ñoom imaam Malik ak imaam Shafi'i ñëw ci côté xaqida waaye boo ñëwee ci côté tasawuf muy jaani suuf yi mboolem ñi ko jiitu woon ñëpp dafa leen a wormaal mooy sëñ mosul dii diingat kenn ci wàllu wàllu tasawuf moo tax da nga daan gis ni jëfandikoo na mboolem awraad yi wérdul xaadiree la njëkk a jëfandikoo waajuram joxoon ko ko jamono mi fi nekk jël jëfandikoo na wérdu tijaan jëfandikoo na wérdu saasali waaye nag ñu bàyyi xel ni ñaari wérdu yooyu daf koo jëfandikoo woon li tabarruk waaye nag lay laysa li taalluq mooy daf koo jëfandikoo woon ngir balkeeru ak am gum ci amoon ndigal ci yonent bi salaa salaam waaye jëfandikoo woon jëfandiku aju ci balaa ñenn ñi di def di di ci def yenn kii kon du woon noonu la def noonu la def noonu la def nag ba yàlla jox ko wér du boppam woo xamante ni sii moo ko amal moo ko amal boppam di di waaye malgré li muy am wér du boppam yépp ak wér du murit nga xam ni boo ko xoolee mulaqas la ci mboolem awraad yi nga xam ne ñoo ko jiitu teewut sëñ Tuubaa daf daan wormaal ñëpp daan wax naan wa kullu wirdin yuridul murida li xadratillaahi walan yahida sawaun intama ila al jilaani aw intama li ahmadi tijaani aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum qataan ala sawaab kon sëñ bu mag bi daawul nga kenn malgré am na yëfi boppam waaye teewut li da daan conservé mboolem ñi nga xamante ni si ñoo ko jiitu ñëpp daf leen daan jox cër euh, jàppe leen ay sëriñam àggoon na sax ci wax ñi ni masaayixi sayidinaal jilaani wasaasali maahu tijaani may samay sëriñ ñëpp sayidinaal ji Cheikh Xaadir Jilaani ci la bokk saasali Cheikh Ahmad Tijaani ñoom ñëpp ay sëriñ laa leen ay sëriñ laa leen def loolu nag daf koo defoon rek ngir wormaal leen ndax tamit boo amee benn mission boo war a def bokk na ci xekk ma mooy nit ki su ñëwee war a am lu mu yeesal wala am lu mu war a produire mooy nga ñëw jël li fi nekkoon conserver ko càmbar ko waaye doo jëw rek tànne ko moo tax sëñ mag bi mboolem ñi fi nekkoon ñi ñu ko jiitu woon ñëpp ci ay sëriñ daf leen wormaaloon ñii mu def leen ay sëriñ léegi nag mu jóge ci marxala boobu da ngay gis ni dafay évoluer waat tamit day wan ni dem na ba léegi ñooñu loolu ñu yoroon làq naa seen ngërëm radiya anni sibtuhul jilaani alayhi ridwaanu lasi alaani radiya anni sibtuhu abul xasan alayhi ridwaanu yuqallidul xasan radiya anni sibtuhu tijaan alayhi ridwaanu mubinil jaani gis nga kon wax na ni ñooñu nga xam ni ñoom laa nekkaloon ñoom ñëpp kenn ku ci nekk làq naa sa làq naa sa ngërëm waaye yëmut foofu yëmut foofu dafa évolué waat mooy sëñ Tuubaa dafa avancé waat avancement bi avancé mooy dafa wax dafa dem ba nag déclaré ni ñooñu lañ yoroon yàlla doon loon na ma ko kon muhaafasa gi ba tey mi ngi feeñaat foofu mooy ñooñu nga xam ni ñoo ma jiitu woon ci ay masaayix kenn ku ci nekk yàlla donn loo ma la nga yoroon lii xutta maa faaqa bihil jeylaani dégg nga li mu wax alayhi ridwaanu lazi ilayya quttu maa bihi abul xasan faaqa bi xidmati nabi jaddil xasan tamamtali bi maa bihi tijaani faaqa wa kuntali bil marjaani gis nga alayhi ridwanullahi alayhi wasalaam kama bohum qad intafat wala gis nga nee na yàlla fo wommatal na ma la Cheikh Ahmad Tidiane kawe woon ñëpp yàlla teg na ko ci sama lox yàlla wommatal na ma la mu joxoon abul xasan yàlla wommatal na ma tamit la mu joxoon Cheikh Ahmad Cheikh Ahmad Tidiane yi kon gis nga kon sëñ Tuubaa li ko yàlla may lépp téewut gis nga même buy déclaré ni yàlla doon loo na ma li téewut da ngay gis ni daf koy daf ciy ànd ak ma jox la cër ba keroog muy wax ni la nga amoon nag yàlla may na ma lu tal noonu wala jox na ma lu tal noonu kon loolu wane na ni kon théorie boobu wane na ni kon mooy xaafisu ma warisa bihi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min kummalil awliya fil fiqh wa fil tasawuf wa fil wa fil wa kon wane na ni li ñi ko jiitu woon ñëpp ci ay awliya ak nit ñu baax ñi kenn ku ci nekk la nga yoroon suñu borom doon loo na ma ko kon mën nañoo wax ni kon sëñ bu mag bi kon mu xaafis la ci côté boobu kon loolu laa doon tënk ci naka la sëñ bu mag bi nekkee mu xaafis mooy naka la conserver la li nga xamante ne si moom la moom la moom la moom la fi fekkoon ak ni mu ko jëmmale ak état yi nga xam ni doon na ci jaar ba conserver loolu. ñu ñëw nag ci sëñ bu mag bi nag euh, ka mu jaddit mooy sëñ bu mag bi nag euh, mu jaddit ndax mu jàddit nag euh, dafa nekk maqaama bu kawe boo xam ni eh, ndax dañuy wax ni ci xadis abu hurayra suñu borom dafa wax ni ki yonent bi sallallahu dafa wax ni inna allaha yab'asu ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha diinaha mooy yàlla téeméeri at yu nekk dana yónni ku yeesal diineem lu tax yàlla di def loolu ban xekk ma masroa ya moo ci nekk mooy dañuy xam ni nit ñi au fur à mesure ñuy gën di continuer seen ngëm-ngëm di gën di woyof ah liñ jàppoon di gën di bëri ay rax ah muy gën di sori maanaam mbir lu mu gën a yàgg rek boo may tuut day gën a day gën a day gën a kii léegi nag bu ñu demee ba nit ñi nag diine génn ci seen xel wala seen ngëm di woyaf day baax nag suñu borom léeg-léeg mu yónni jëmm joo xamante ni si daf koy waajal ci anam yépp ngir mu mën a ngir mu waaye yeesal googu sëñ bi waa nekk mu jaddit ñu bañ a jaawale ni sëñ bu mag bi nekkutoon koo xam ni bu ñu nee mu jaddit la nekkutoon koo xam ni dafay indi lu bees ndax mu jaddit yi am na ko fi njiitu woon ah abu ah, Omar ibn Aziz mu jaddit la woon imaam Xazali abu Hasan Asazali kon am na ay mu jaddit yu bëri yoo xam ne jiitu nañ sëñ bu mag bi waaye nag mu bi ñu ko waxee nekkul koo xam ne da ngay indi lu bees tàq wala ngay produire loo xam ni dafay kenn ci day bees ci lislaam déedéet. waaye li ñuy tuddee euh, munxasirun ala iqaasil himam la dal muslimina waaw boo demee ci téere bu Moustapha Diop bi noonu la koy waxee wa tajdidu aqliyaatil qawm xatta tawaakaba ma jaa bi rasulullahi salallahu alayhi wa sallam mooy nga yee yitte yee jëf yee yu baree bare bari ci li nit ñi nekkee woon ba mujj dëppook li yonent bi salallahu alayhi wa sallam indi woon loolu mooy tajdid gi mu nekk léegi mu léegi mu yees ci xol yi mooy lislaam bees ci xol yi bees ci jëflante yi bees ci lépp kon loolu mooy mooy tajjid gi loolu nag sëñ bi mu ngi ko gën a fësal dëgg li ñu tuddee amajay sasin mooy atum 1313 ndax sëñ bu mag bi bu leen nga leen xam ni ay étape la sëñ bu mag bi boo doon diraasa ak dundam mënoo koo diraasa ci benn benn benn fatra mooy sëñ bu mag bi xam nga sëñ bu mag bi avant buy dem ci géej gi bokkut ak sëñ bu mag bi bi ginnaaw bi mu ci géej gi keneen la moom meneen sëñ Tuubaa la woon kon waaye waaye nag boo xoolee tajjit gi dëgg mi ngi ko feeñal ci at moomu foofu nag la ñuy wax ni foofu la Moustapha Diop di ko théorie naan al insilaaxul kulli min qawaalib al muhaafasa ila rihaabi tajjit mooy jékki-jékki nag lépp loo xam ni moom la conservé woon nag léegi nag mu commencé nag di ci indi doxini boppam ak xalaati boppam waaye nag loolu lépp da koy tënk ci lislaam lislaam rek la koy tënk nag maanaam nekkul lu bees tàq loo xam ni lu muy indi la moo tax da nga diinun si waa islaamihi laa yuxmadu inda lillahi wa bihi nu jaddit muy bay du siiw loolu na ko ñëpp xam ba gis nga fee waxoon naa sàng ni dafa wax ni tàmbamtali kon tàmbamta mooy damay mottali tàmbamtali bi ma bi ma bihi atti faaq bi attijaani faaqa wa kuntali bil marjaan kon loolu dafay wane ni kon dafay mottali waaye nekkul loo xamante ni si lu bees euh, tàq la loo xam ni daf koy daf koy indi ñu gis ni sëñ bu mag bi euh, malgré dafa doon mujaddid la woon waaye ku amoon warma la tamit ci ñi ko jiitu woon ndax sëñ bu mag bi bu ngeen fàtt bu leen fàtt ni li diirub li fi waajuram di nekk muy Maam Mor Anta woote wut maanaam woote wut andiwut rupture bi daal rupture bi may waaj a mooy muy tajjit gi euh, fësalu ko dafa war maa wormaaloon waajuram nekkoon ci ay penkam di jàngal nit ñi di taalif ay téere di eh, nit ñi ñëw di ko bëgg si ba mujj waaye nag bi fi bi fi bi fi bi fi bi fi waajuram génnee nag ci la nag daal di woote nag li ñuy tuddee rupture nag rupture carrément mooy inqitaaul xaasim an anta wax eh, daal di nag siddatu taalux gi ma doon wax nag mu commencé nag di ko di ko fësal bu baax a baax a baax ci am mbindam Hmm? ubaayiul yowma rasul al mustafa waxoon daa ko sax ak baayaatuhu bi fu aadi xiina lam tarahu aynihi jaayanteeg yonente bi jaayante goo xam ni ba mu koy jaayante sax nee na gisagu ko ci bët ak bët hmm? baayahu al ma al di wax ni samay mbind samay euh, lépp jaayante naag yoon Mustafa salaa ka mis la bay atil mala il alaam dafa mel ni jaayante ga nga xamante ni si moom la waa mala il alaam jaayante bayaatu xayral mursalina zaxtiraabi naawiya hijratin wa nusrin ka saxaab jaayante na maag yonte bi salaa sallam ci tumuranke jaayante goo xam ni na ko saxaaba yee jaayante woon ak moom yéene yéene cee nekk muhaajiroon bokk ci muhaajiroon yéene ci bokk ci muhaajir ansaar yéene cee bokk ci saxaaba yi kon da gis ni foofu sëñ bu mag bi tamit eh, malgré ci marxala boobu dafa commencé woon di bëgg a wane rupture ndax boo boo déggee bi may wax bi ma ci marxala bi ma njëkkee mooy mu muxaafasa gi da ngay gis ni sëñ bu mag bi daan na am ñu muy sóoraale di wax masa ay xise dinaa waaye waaye dafa am foo xam ne nag dafa dafa toll am ba foo xam ne ba mu fa tollee dafa commencé mel ni koo xam ne da doon dagg rupture boobu di wax ni daal léegi sama diggante ak bi daal na ngeen xam ne nag kenn doxu fi hmm? laa abtari xayra nabi wasila na ngeen xam ne nag ku dul yonente bi salaa salaam jàppewuma ko mu dox sama digganteeg yàlla hmm? zahara li anna rasulallahi wasilati qataan gis nga boo xoolee nam daan waxee sax ak ni muy waxee ci marxala bi bokkut daf da ngeen na leen wér péng ni yonent bi salaa salaam nag mooy mooy mooy mooy sama mooy sama wasila baana li kulli man lahu maaqulu anna wasilati huwa rasul gis nga mel ni kuy defee nit ñi neen ñëpp na leen leer naa ñi gis nga day mel ni sëñ Tuubaa dafay dafay dafay déclaration dafay am déclaration bu mu bëgg nit ñi dégg mu ni yéen ñëpp na leen wér péng ni képp ku am xel na la wóor péngi ni nag amatuma beneen sëriñ bu du bi sallallahu alayhi wa sallam loolu dafa dafa war a leer mu bàyyi googu mu jëmmale ko ci noo xam ni nee na su ma fekkutoon comme ni ko sëñ Bassirou nettali ak yeneen nettali yu bëree bëri nee su fekkutoon ci kaw suuf lu dut si ak biddiw yi nga xamante ni si moo tiimoon yonte bi sallallahu alayhi nee na dina ko wér ni tarug yéeneem yéeneem ju dëggu ak cofeel gum am ci yonente bi salaa salaam nee na mën na koo garanteel ni aajoom dina faju ci bi salaa salaam law lam ajid min aathaari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam illa madhara haza nujum wa sama allati taxaqaqtu annahu rasulullahi sallam kaana yanzuru ilayha la wathiqtu anna niyati wa mahabbati ilay kafilati an lihi bi qadaa il xaaj gis nga su ma fekkutoon lu dul asamaan seeg biddiw yi danaa mën a gaarante ni mu wóor ma ni biddiw yi moo tiimoon yonente bi asamaan si moo tiimoon yonente bi wóor na ma ni sama sama sama sama tarug yéene àggale na ma ci ni danaa mën a danaa sama aajo dana faju ci sama diggante ak yonent bi kon loolu la kon loolu la ko théoriser tajjit googu nag mooy ma wax daf koo jaarale ci ay étape ba ca njëkk mooy bi mu jaayante ak yonent bi mel ni ku ko déclaré ñépp xam ko daf cee boole cofeel goo xam ni kenn mës a gis cofeel gu tare noonu ci digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa ak yéene ju dëggu joo xam ni digganteem ak yonent bi kenn mësu koo gis kenn mësuloo gis cofeel gu toll noonu ndax da daan wax ni sama diggante yonent bi damaa mel ni ku bóof ci maanaam ab buntam rek koo xam ne dañ ma jéng ci buntu yonent bi salaa salaam yaa sayidi yaa rasulallahi yaa garadi inni ala albaabi kal masuudi fi xarani fa kun muayni ala nafsi wa xus bi yadi wa kun xijaabi fi daarayni an mihani gis nga yow yonent bi salaa salaam na nga xam ne yaay sama lépp na ma dimbali yaay sama kiiraay yaay sama lépp mu wax tamit xeetu cofeel goo xam ne ci yonte bi salaa salaam cofeel gu tar la mu ni cofeel gi ma sopp yonte bi salaa salaam dafay far sax bëgg lépp bëgg ak njaboot bëgg ay soxna bëgg lépp bëgg ay doom mahab mahabati al muxtaaru sayidina xubbul maxaaniina wal ahliina wal warada dammi wa ahli wa awlaadi filaadu fidaau lahu abdan xadiman lahu muskaana li samada gis nga sama alal sama waa kër samay doom ñépp jote naa ko yonent bi salaa kon waxe na ci yonent bi xeetu waxin woo xam ni mosuñoo gis waxin wu ko gën a kawe mosuñoo gis waxin wu ko gën a wu ko ëpp yéene wu ko ëpp pas-pas ak cofeel moo tax mu tënk ko ñi daal nabiyun al Mustafa xeyrul wara xarat yi fi kulli shay'in wa ma abahu yaba kon loolu laa doon tënk ci digganteem ak yonent bi ak cofeel gi beneen bi ci des ci mazahiru tajdiid di mooy ni mu ko manifesté mooy li ñuy tuddee ak tarbiya bil himma loolu ba tey rupture la ndax loolu xewutoon ci jamonoom ndax bu ngeen fàttee bis ba mu génnee bisub àjjuma ca Mbàkke Kajoor mooy déclaration yoon wi dafa xëy benn bis rek daal di génn daal di wax ni ku àndoon ak ñun ngir jàng kese na nga dem waaye ku bëgg liñ bëgg nag mën ngaa toog mooy man saxibana li taallum fal yanzur li nafsihi wal yazhab xaysu sa waaye wa man araada ma aradna fal yasir bi sayrina wal yuqim bi amrina loolu te sëñ bu mag bi nag dafa mel ni ku doon test test saxaaba yi mooy mag ñi nekkaloon ndax wax nañ ni daf koo wax rek daal di tëjuwaat maanaam waxu ko wax ay laji maanaam dafa génn def déclaration boobu daal di duggaat ci biir murid di nekk ci ak jaaxle ndax booba loola lu bees la ci ñoom maanaam mooy koo xam ni da ngaa àndoon ak man kese ngir jàng léegi mën nga dem wuti xam-xam feneen waaye nag koo xam ni bëgg nga li ma bëgg ah fal yasir bi sayri naa nay na nga ñëw ñu ànd dox wenn dox waaye nag wal yàqum bi amri naa na nga taxaw ci samay ndigal loolu rupture la loolu liñ tudde loolu rupture la léegi bi mu ko defee nag murid yi nag ñenn ñi daal di amuk jaaxle bi ñu amee jaaxle da ñenn ñi daal di dem ñenn ñi des fa waaw wax nañu sax ñu ëpp dem Euh, boo tax gisee ñi koy nettali dañ naan euh, ila zihabil julli wa baqa il xil mooy ñu ëpp dañoo dem bàyyi fa bàyyi fa ña gën a néew ba ca ab diir sëñ bu mag mi daal di génnaat nag bi mu génnaatee nag ci la def déclaration bi wax li tax mu wax loolu daan ni shaafaxani rasulillahi salaa salaam rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat loolu boo gisee day mel ni ku doon testé murid yi ndax xañ na mën naa am bu leen waxoon loolu mën naa am danañ toog maanaam yittey saxaaba ya war a ànd ak moom ak seenug dogu moo tax moo génn daan ni yonent bi salaa nag moo ma jox ndigal ni képp koo xamante ni si eh, kii kii daan ma nag na nga yar say taalibe nag bil himma himma mooy tasawuf rek waaye nag bu leen yar ci jàngum kese ndax booba xam ndax bu leen fàtte sëñ bu mag bi bi mu fi nekk xam-xam tasaaroo na wax dëgg yàlla booba moom xam-xam tumuraankewut ak yu waaye nag xam ndax jëfe xam jamono yooyu ña ngi koy ña ngi koy def ak la xam-xam laaj booba defuñu ko waaye yëmu ci ba tey daf koo théoriser dafa wax ni loolu daf koo bind dafa bind ni loolu loolu ma wax noonu ndigalul yonente bi la wa min ajaibi ibni abdillahi sala alayhi bisalaamillaahi baaxin ada arduhu bil awliya ila alqiyaamati kulli waliya sunnatuhu wasaanaha an bidaai tabsiruhu qadimahu fasdaai gis nga fa asda ja jëma mooy fasda bi ma tu umar ja ci alquran daani amarahu sala alayhi llaahu fi l ali wa sahbi wa man walaahu bi an yuallima almuridina wa man yaqbali nusxa min ahli zaman gis nga nee na loolu yonent bi ku ko digal yonent bi moo ko digal nag mooy ginnaaw nag bu ma waxee état yi mu jaar yépp ba ba ba nekk nit ku mag mat al insaanul kaamil ba war a porter message boobu war a nekk koo xam ne nag mooy xaafisu maa warasa bihi rasulullaahi sallallaahu alayhi wa ba jaar ci étape yooyu nee na bi mu agsee foofu nag nee na ci la ci la ko Sëñ Tuubaa wax lu mel ci la ko yonent bi sallallaahu alayhi mooy bi mu agsee foofu ba àgg ci étape boobu nga xam ni doon na mbooti yonent bi sallallaahu alayhi ci xam-xam ci xekam ak anwaar yi nga xam ne war naa nekk ci moom ak asraar yi suñu borom kàttanal ko kàttanal goo xamante ne si mën na yaru drapeau lislaam ci la wax ni yonent bi salaa salaam moo ko wax ni ko rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi bi bi darsi bi darsi faqat waaye mu nekk loo xamante ni si lu lu am lo am solo la wax ni nag euh, naza ali man ma man yasaau min ulum man yafalu ma yasaau min ulum wa yumnu xaaliya bi kawnihi al xafistu ma siina an dafatiri fala takun an xidmati bi faatir maanaam jamono yi muy wax loolu jamono yooyu àgg na ci suñ borom moo ñaale ko wala togg ci moom lépp loo xamante ni sii war naa nekk ci moom moo tax mu ne xafistu ma siina an dafatir fala takun an xidmati bi fatir ataani al muti bi jaahil mustafa sala alayhi bi salaamin istafa barakatal quraan gis nga nee na suñ borom foofu jox na ko barkeb alquraan looloo tax mu mën a barakatul qur'ani wal ulumi wa qaada jubnuha ila taalimi gis nga mu ni ilaa tawaali fii yaquudu llaahu asraara laa ilaha illa allah gis nga ci samay taalif tax ci laa di ci la yàlla wommate ak mbóoti la ilaha illa allah ci lay wommate ñëpp nazaali wa laysa minni yansax wa innani bihi himan wa mafza nee na suñu waram tamit wax ma ni ma yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ma ni ma yow ab wéeruwaay nga ab làqutukaay nga zalika fadlullahi yuti man yasaau wa qaala lii qul biyalus moo tax mu ni amarani bi an usarriha bi annani malaadun wa himan wa mafza mooy dafa ma digal ma leeral na ni man nag ab wéeruwaay laa léegi léegi ab làqutukaay laa wa man araada al xayra fii kiltay daaray ni fal yalus bi képp ku bëgg yiwu àdduna ak alaxira na nga ñëw wéeru ci man man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu benn rupture la mooy ci mazaahiru tajdiid bokk na ci mazaahiru tajdiid gi mooy ni mu ko manifesté mooy li ñuy tuddee sumuliyatu daawatul muridiya mooy universel bi universalité bi nga xam ne am na ci li ñuy tuddee daawatul muridiya ndax sëñ Tuubaa nekkut sëriñub tariixa nii rek boo xam ne day joxe werd ndax ñu bëree bëri euh, loolu da ciy tuuti muridiya lool da ciy da ciy néew. ah benn tarixa noonu rek boo xam ni da ngaa mel ni tarixa yëpp di joxe werd ak yooyu déedéet moo tax boo xoolee rupture bi mu njëkk indi foofu li ñuy tuddee kalimatul murid la Sëñ Tuubaa njëkk la njëkk a la njëkk a changé foofu mbooleem tarixa yi da ngay gis ni bëri na ci bi yooyu ñoo xam ne dañ ko la ci dëkk ay sannoosik ay xaadiriya Abdou Xaadir Jeylaan ay tijaaniya wala ñu askanale ko ci ak nit wala ñu la ko ci keneen waaye tarixa mu rek ngay gis tarixa boo xam ni kenn askanalewu ko ci ci ci dara mooy dañ ko askanale ci baat boo xam ne bu universel la mooy baatub al murid murid nag buñ ko waxee mooy man yuridu al wusula ilallaahi subhanahu wa taala kon mu nekk daawa boo xam ni tajdidiya la talqiisiya la ndax dafa tënk Sëñ Tuubaa dafa fexe ba tënk ci lépp loo xamante ni si e, mi ngi woon ci mbooleem turux yi nga xam ne ñoo ko jiitu ci ay awraat ak ak yu mel noonu kon dafa nekk lu am solo lépp loo xam ne moo ko jiitu woon ci lu baax ñu baax da ngay gis ni sañu mag bi tënk na ko foofu comme ni lislaam tënkee mboolem addiyaan yi ko jiitu lislaam dafa ñëw nekk tënk ci mboolem addiyaan yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon muy yahudi yaag euh, nasraani yaa yu mel noonu boo dee xool murit dafay mel ni tamit benn tarixa la boo xam ni mboolem lu baax li nga xam ni suñu borom defoon na ko ci yeneen turux ak yu mel ni yëpp boo xoolee yàlla dajale na ko ci jëmm ju tedd jooju muy Seex Xaadim moo tax muridiya kenn mënu koo jàppe nii rek ab tarixa waaye projet de société la lañ koy jàppe boo xamante ni si dafay am li ñu tuddee saadatu daaray ni moo tax loolu da koy théoriser ci am mbindam moom sëñ bu mag bi ndax foo ko fekk da ngay gis ni da gis ni moom ñaari baat yooyu lay faral di wax mooy mat matlabul fawzayni ak yu mel noonu muridiya gi nag da ngay gis ni kon sëñ Tuubaa daf koy misaal ci nit ku mat ndax daf koo théoriser waxu ko noonu rek sëñ bu mag bi dafa dafa indi li ñuy tudde al insaanul kaamil théoriser ko jëmmal ko ci li ñuy tudde mawaahibun naafi'a théoriser ba tey projet de société mu théoriser ko ci ab dëkk mooy sos dëkk bu ñu wax Tuubaa jëmmal ko ci xasida gu ñu wax Matlabul Fawzayni hmm? salaatu llazi fi kulli sayrin wa fi safar هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سار وفي ظفر هماني ألا ما